beaucoup. Merci. Tapulez-moi Omar Lom, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup des applaudissements pour vous. Referme, Machallah. Légui, dañ di présenter délégation Serigne Ndiaye secrétaire Air Sénégal. ñun suñu kilifa nga si métier bi. te mu am la parole. merci beaucoup mon fils. Didier jërëjëf. di doomu Saloum. li ñu naan président Macky juumul. ndax am na ku lu bari ku ko xam xam ni journaliste de métier la. voilà papa. waaye culture. maa ngi déglu. neexu Ndofane Mame Samba Ndiaye. délégation moo yegg si nii te ci la mu wax a baax la mais de de Fane. Mame Samba Ndiaye tamit gis nañu mu taxawoo ci li ñuy baax a baax papa. jërëjëf jërëjëf Sala. jërëjëf kon délégation waa Ndofane. kon soo am la parole. jërëjëf moo nekk nii ci ginnaaw am na fi kilifa di ministre de la culture am na beneen délégation bu nekk ci ginnaaw muy délégation Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général impôt et domaine waaye liñ naan état dafa am hiérarchie dégg nga balaa ñoo def dara oh dañuy dalal délégation monsieur le ministre de la culture Abdoulaye Coulibaly bu ko defee rek madame la directrice am na teraanga yoo xam ni war nañ ko séq ki nga xam ne moom mooy Kéba bu defee rek. Eh, DJ nga jox leen micro boobu bu ko defee madame la directrice di jox la kàddu gi eh, nga wax li nga xam ni moom la la sa kilifa yebal di sunu kilifa. ak a eu à accompagner cette initiative. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Coulibaly, nous yónnee une autre délégation. Cette délégation est représentée Sow. mu wax ak di ko ministre yónni di Kéba Ba. li mu yóbbante ak li Sow kon ñu déglu monsieur Sow bu baax dinaa maanaam la directrice bu rajo ba pare monsieur Sow nag moom mooy jottali kàddu yi nga xam ni moom yónnee bi nga xam ni moom la ñu ministre de la culture yónnee monsieur Sow war ko jottali Pare monsieur Sow vous avez la parole. Euh, wax asalaamaaleykum mbooloo mi yëpp. di nuyu autorité yi fi nekk yëpp di nuyu mboolem Saalum bu fi teew euh, kàddu yi may yëkkati euh, madame la directrice madame Gassama mënoon na wax wax ji yëpp waaye daf ma ci cëral rek delloo ma kàddu bi pour ma yeggee mbooloo mi kàddu yi nga xam ne nii monsieur le ministre <coughs> am na pour wax ko ci digganteem ak Kéba Ba ak événement bu toll nii nga xam ne def na ko ci pour suqali Saalum kese tax koo jóg Kéba euh, kàddu yi may wax ni kàddu monsieur ministre la lott naa trop pour wax ci turam parce que ku xam ak wétu xam ne waxal ko yombul waaye dañuy jëm parce que bu ñu la nga war a def mooy wax rek nga mën a def waaye ñu xam nañ ne wax ci kàddoom def nañ ko def ko. Touba monsieur le ministre Abdoulaye Coulibaly nee li ñu njëkk a def mooy di jégalu Saalum Saalum yëpp di la jégalu yow nga xam ne nii yaa organisé lu nii te ce première fois nga organisé ko ba nga xamante ni tey doon na xam ne nii euh, envers du budget jéggi na sax Sénégal. lépp yaa ngi ko def pour suqali Saalum Saalum pour suqali li nga xam ne nii mooy artistes yi pour suqali li nga xam ne mooy développement Sénégal ci biir aar musique royal ci biir loolu noonu eh, nga def tey ñaari mbir da nga ñëw suqali Saalum waaye da nga ñëw porte événement bi mu événement boo xam ne nii tey mooy rééliraat suñu président Macky Sall kon soo jëlee loolu dañoo faal faal yëpp ñu teew fii tey da mandarga ko ci ngoyaan nga woo leen ci réélection Macky Sall nee defaloo ko kenn ku moom moom nga ko defal kon nga xam ne jàpp nañu guddi gi moom nga ko defal parce que moom moo ko waroon def nga defal ko bu weesoo sa diggante ak moom ngeen di mbokk mu lay xamal ne ngay def président Macky Sall ko séedee Saalum Saalum ñu xam ne lépp ngay def bi Macky xam na ko yëg na ko yow xam ne yëg na ko euh, mu wax ne soo gisee teew bi tey xam nañ ne démb lañ doon inauguré musée des civilisations civilisation noire démb adduna bi yëpp daje kon tey ñu nekkoon man huit heures bu léegi ñu ngi dox maag moom jëw bi boo jàng président la ñu ñëwoon loolu moo tax mu wuute bés bi war a xëy suba san Saint-Louis am forum bu fay tëj ci francophonie bu fa jógee guddi gi dafay dem Maroc parce que sànq la ko président wax na moo koy représenté Maroc loolu moo tax bu ñu jógee léegi Radisson mu ne ma continuer nga ànd ak ñi ngeen dem ngeen ànd ak madame Gassama représenté ma waxal ma Kéba su ma yoo xam nga ñi la dafay ngoyaan si xolam su fi nekkoon tey yoo xam nga loolu amul fenn ku ngoyaan ci te du fa kon bu ko ratee rek am na lu ko tàbbe loolu muy wax ne initiative bi ñu ngi koy rafetlu euh, di wax ne euh, saa yu yëpp nañu jàppoo ànd ci li nga leen woon mooy lan la réélection de monsieur euh, le président Macky Sall au premier tour loolu moo war Saloum loolu moo war Saloum parce que Saloum bu ñu xoolee li Macky investir ci biir pôle Sine Saloum war na tax ñu góorgóorlu ba lépp lu mu def lu mu def àll lu mu def ci affaire programme PUDC du programme bourse familiale du programme universel yooyu yëpp war na tax ñun Saalum parce que lépp lu muy def yaa di doomu Saalum boole nañ boole waaye li ngay def appel bi ñu su monsieur le ministre nee na nañ ko Saalum yëpp doomu Saalum rééliraat Macky Sall xaw ma beneen gox waaye na Saalum na suuf soosu réélire ko ba nga xam ne ni dañ am doole pourcentage boo xam ne ci pôle suñu Saalum amul fenn fu ñu koy dégg ci Sénégal loolu ñoo koy ñaax ñu jàpp ci loolu ñu lépp ñu dimbalante ci wax na nag événement bi euh, porté na ko foo xam ne porté ko benn événement parce que lépp lu aaru suñu Saalum rek euh, def na ci loxoom euh, bokk na ci programme yi nga xam ne nii mu koy dimbale acteur culturel bokk na ci li nga xam ne ñu tey ñu euh, tuddati euh, li Macky Sall investir ci biir musique li Macky Sall investir ci biir art li Macky Sall investir ci biir euh, institution yi nga xam ne nii moo bokk ci ci ci culture pour lépp pour culture rek pour artistes yi mën a jëm kanam loolu yëpp yaa ngi koy dundal ñu yëpp ñu tey nga def ko fii ci Douta Seck directrice bi wax ko septième émission te yow xam na ne saal bi xam na ne ñu koy duyee te lépp administratif bi jël na ko teg ko seen loxo gratuitement kon loolu doon na loo xam ne bëgg Saalum moo ko def loolu ñuy gërëm nga xam ne ni moom lañ fekk bu rafet te ministre xam ko ñu jàppale artistes yi loolu na ko parce que loolu mooy li nga xam ne moo ko fi teg ministre kontaan na ci moom trop wax na ni seeti loolu ci kanamu mbir doomu aadama bi may ñëw yëkkati na enveloppe jox ma enveloppe boo xam ni participation ci ci événement bi nga xam ne nii mooy événement bii nii ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp lépp ñu ci man parce que waxal kilifa gu toll noonu moo jafe ñu ñaan yàlla may ñu fekkee déwén lépp lu ñuy ci mébét yal na sotti asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà merci waaw dégg ngeen euh, bi nga xamee ne monsieur Sow daaneel na kàddoom li ñaan teraanga joo gis teraanga rek moo koy fay balaa maa ñëw ci association des comédiens damay ñëw léegi ci monsieur Sow li mu wax ci ministre de la culture ministre de la culture bu ne jaar na ci réew mi ku nekk liggéey nga li nga war a liggéey mais Abdou Latif Coulibaly bi mu yoree culture rek léegi képp kuy acteur culturel gis loolu yàlla suñu bopp def Man ça les je ne parle pas n'importe où et je ne parle pas avec n'importe qui, mais je connais bien à qui je m'adresse la parole. dëgg rek la yàlla am na ku li mel ni artiste bu ñàkk waajur mi ngi ci sawet artiste bu ca am bànneex mi ngi ci ay buntam da ko ubbi ku ñëw comme la war a booleel mu boole la ak moom man barki démboo jaay bi may dem màkka daf ma boole mu si kundul ma dem bureau Goro Seck bi dafa am gaañu Abdoulaye Diouf Coulibaly moo déplacé wu ak tey mu jël ni centre bi nga xam ni centre bi yàgg la mu jël ko tey ñu bëgg a jox ko kii di Kéba nga xam ni doomu Saalum la Kéba yow boo ko gisee muy dox lu suqali Saalum rek ci lay dox luy jàppale président de la République ci lay dox nee naa ay nit bu dee rob di sot ci benn naan ñoom ñëpp dañoo yëkkandoo dóorandoo xàcceendoo loolu mooy li am solo loolu laa ni woon dinaa ko wax ci kanam monsieur Sow wax ko ci kanam madame la directrice nga wax ko am na def Koulibaly ñun ñi xam ne nit culturel lañ nit culture lañu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant madame nag am na lu wax leen madame Gassama nee na mi ngi gërëm association des comédiens bu baax a baax rawatina ki ci bopp bi di suñu rakk di suñu xarit nit ku baax muy Adama Faye di doon Medina am fulla lool am fayda lool bëgg boppam lool am jom lool di suñu mbokk ku nekk nga di géwél baax waaye ku fi géwél di bàyyi baaxul ku mu neex nga ni géwél baaxul waaye ku fi géwél yi bàyyi rek baaxul xale bu am jom la xale bu am fulla xale bu am fayda kon madame euh, madame euh, madame madame Faye nee na ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax madame Gassama di leen sant di di ngeen koy jàppalee lu muy yëkkati ngeen jàpp ci nee na cant am na fu mu tàmbalee na amul fu mu yem ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Adama. nee na nag yéen la xamul lu ñu def rek nee na yaa leen jàppale bu baax a baax yow madame Gassama. fii ku fi yaatu yaatu bi say buntu ba yaatu ba mu yaatu fii nee na ñu ngi lay ñaanal yàlla loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nañu déglu Kéba am na loo xam ni saala bi nga mënu ko koo waxal loo mën biiru waay waaye def ci biiram loo yëgul kon nag Kéba ma jox la kàddu gi nga delloo kàddu yi nga xam ni moom la ministre de la yoon la ministre Sow voilà di gërëm rek encore di gërëmati rek parce que Latif moom Issa mii mu yebal Issa sama cousin suma frère la ni Latif nekkee suma frère kon man bu Issa bu Latif amee ngant su Issa teewee rek man man doylu naa délégation bi Issa àndal man ci suis très très fier tekk fi sama directrice muy fàttakan nii di ku baax li nit ñi wax rek looloo am ministre si ne su ma su ma ko ooy téléphone si li may laaj mu ne ma alors ana madame madame madame Fanta ma ne ko madame Fanta mu ne ma sa xarit kon loolu lu am solo la dama koy gërëm rek di ko sant Issa di gërëm ministre rek ndaxte lii tey ku ne ku ne amul solo yow yaa nekk ci loo xam ne que nag président Macky Sall nii la soxla ministre Omar Youm daf ma oo ci suba na ma président ne na kontaan na ci yow président li mu lay wooyee léegi mooy borom ngoyam kon ça veut dire que sant ñu jàpp góorgóorlu bokk ndey bokk may gërëm sama rakk yi fi tey sama rakk yi ñëw nañu waa Nioro comme ni ma ko waxee woon sànq rek man li li gën a indi problème bi rek mooy tey dogal bi xew nga xam ne tey Kaolack waa Kaolack ñëwuñu ñeneen ñëwuñu te vraiment loolu yëpp dañ ko préparé waaye yàlla jaam ak dogalam yàlla ak pexeem ñuy ñaanal suñu Sidi Lamine si yàlla xare ko àjjana ñëpp ñu ñaanal ko te yàlla xare ko àjjana vraiment Issa waxal ma ministre ne ko ñun kontaan na fierté la pour ñun léegi nag dañ bëggoon délégation Cheikh Tidiane Ba ñëw profité yéeg ñëw ngeen xaar nag public bi ngeen baal ñu après nag nag mooy tëj guddi gi xam ne ngeen xaar nag après buñ paree ci lii guddi gi day rëpp mu ngi doog a door nag guddi gaa ngi doog a door toroxal nañ seytaane ba doyal waaye nag dañuy gën a rek toroxalaatal seytaane bi mu jëm kanam kon nag Issa Ba ngi gërëm bu baax. ministre de la pêche monsieur Omar Gueye mi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax jàpp na ci guddi gi ñu ngi woon ak délégation bi nga xam ne moom moom moom moog Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñoo bokk ndey baay Maguette Seye Alaaji Cheikh Faye ana Ousmane. Ousmane Dramé Ousmane Kanté ñëwal nii Kanté maa ngi romb de acce na la say jigéen indi nga def délégué nga wax li nga xaw mooy message bi ñu déglu ko attentivement nit ñaan ku ne yow nit ku ne très jaam nga yor kon nag Ousmane la ñu yónni waaye yow boo gis dina koo xam ni moom moo yor caabi bi ki ñu koy jox mooy kenn ci El Hadj Cheikh Ahmad Ba muy sunu xarit soppe Maguette Seye Maguette ñu jox la kàddu gi ubbi Ousmane bu ko defee rek ñu daal di wax li nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane Ba yónni Maguette kàddu gaa yi loo xam ne

xam nga nu mu gisee Salla Bigué ci kaw di ñaan Salla a mën bis. kan noonu monsieur Sall. jërëjëf Bac Jewel El Hadj Salla Bigué mbokki Ndakaaru mbokki réew mbokki Sénégal. El Hadj Salla Bigué. Kéba Dioum il a fait un très bon ndax ñàkk ànd président Macky Sall erreur la. Ah. wante Kéba juumoo lu tax Kéba juumoon muy am bés jël ca paree ya jël ki nga xam ne doomi réew mi la jël ki nga xam ne fukki penc ak ñaar dañ ko wóolu jël ki nga xam ne Ndakaaroog li ko wër dañ ko wóolu presque li Cap-Vert wóolu ko eh région yi nga xam ne ñoo ci réew mi nee nañ Cheikh Amadou Diane Balla le directeur général des impôts et domaines xale bi nga xam ne kenn du da ngay jël pare jël nga koo xam ne dina dem Siin dina dem Saalum kooko Cheikh Tidiane Ba tey bi mu ñëwee waa Siin waa Saalum xam ngeen ne pare dañ koy tànn pare dañ koy def choix Kéba tu as fait un très bon choix à la de Cheikh Tidiane Ba kenn du moom nga xam ne lii président Macky Sall bëgg ci réew moom ci la nekk mi ngi ci financement jigéen ñi ndax jigéen a yorum réew jigéen a yorum kër Cheikh Mati Diagne Ba mii ci li nga xam ne moom a son excellence de président Macky Sall bëgg mu ah. jàngale xale yi jàng am bourse scolaire Cheikh Mati Diagne Ba si la nekk guddi si la nekk bëccëg kenn moom ñu ne fa dex fara ba Cheikh Mati Diagne yamul foofu de nee na déedéet ah ku amul wér gu yaram doo mën a liggéey doo a yorub réew Cheikh Mati Diagne Ba ubbi ay pharmacie yoo xam ne ku tawat ci réew mi tawat Médina indi sa ordonnance ñu faj la hospitalisé la bu dee opération ñu bu dee li nga bëgg ñu defal la ko kooku Cheikh Ahmadou Ba Kéba qui a fait le très bon choix ay waay Kéba juumoo de li nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Diane Ba boolewul ak dara wax ba mu ñëwee la yi dal bi Cheikh Ahmadou Diane Ba ñëwee Médina yi dal mu ànd ak délégation bi nga xam ne nag mooy CATB hors zone ay waay ñu defoon na Ndakaaru la Cheikh Ahmed Tidiane Ba yem ndekete yemu fa xuus na dugg ci quatorze régions yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi bërki démb mooy Njaay mu dugg benn dëkk ñaari gaar Thiès toj ko ba mbokk mbokk ñu ne woon Thiès am na borom wante déedéet ah la peur et dans l'autre camp l'autre camp ñu ngi daw ñu ngi ragal Cheikh Ahmed Tidiane ñëw na ànd ak son excellence le président Macky Sall ku ragal na nga randu ndax Cheikh bi ñëw te bu ñëwee ak le président Macky Sall day seen kaw kon Kéba tu as Cheikh a ngi ñëw siin mi ngi ñëw Saalum ma ne nag ngir sàqul boppam El Hadj Sall bii de yàllaay sàq njiit à la personne de son excellence le président Macky Sall wante cam ba mu choisir Cheikh Ahmed Tidiane Ba ku yokkul da nga wàññi ci réew mi Cheikh ba mu ñëwee yokk na recette budget bi yokk na ko kon nag liggéeykat la ah bee di gis bokk ci lu ne fan kenn du ko jeex réew mi leer ay waay la 24 février 2019 au soir. ñu dàq ba jib ñu ne Cheikh Ahmed Diagne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo réunir le président Macky Sall au tour loolu dafay dëgg. Kéba tu as fait un très bon nee na nag Cheikh Ahmed ba ku ko tuddee bés bu ko bettee lu mu gàtt gàtt mu teg ci ñaari briques jox la ko kon Ousmane Kanté Dramé Kandji Socé mi nga xam ne yaay jiite délégation bi Cheikh Ahmed ba nee na xeeb na. di muy defal Kéba wante yëkkati nga ñaari million enveloppe bu buum jox la koy xeet di xaar deuxième édition koo koy gor si koo koy doomu alaaji Atumaan Babi koo koy doomu alaaji ajaratu Kondu Fall boolewul ak dara as gor la ku ko mu jam la kenn du ko ñaari yoon kon Ousmane lan la lan la ki ñuy war kan la ki ñuy waxal la ki réew mi wax la ki Medina wax kan la en la personne de Cheikh Ahmed Ba mu ànd ak Kéba te Kéba as gor alngattumata anndal tuddee nga ko war a tuddee monsieur Amady Diagne Ba góor la jullit la taalibe la jaamu yàlla la te lu mu wax def lu mu wax def yàlla na ko yàlla jàppale bàyyi yàlla ak moom ba fi ngeen bëgg a yóbbu son excellence président Macky Sall le 24 février yàlla def ko allahuma sëñ laaj dina dem Sine dina dem Saalum. asalaamaaleykum mbooloo mi. Keba ñoo ngi lay nuyu di la sant. si suñu tur kilifa Cheikh na Tidiane Ba doomu Medina doomu Ndakaaru doomu Sénégal ci nuyoo yi dañ ciy jiital suñu kilifa muy le président Macky Sall mi nga xamante ne moo waral bés bii kooku nga xam ne damay faral naan c'est chance pour le Sénégal parce que ak moom yàlla dafa wane teraanga yi biir Sénégal am nag fu mu féete Médina am fu mu féete doomu Médina bi ñëpp doomoo macha allah Cheikh Ahmed Tidiane Ba donc c'est les deux tiers des recettes fiscales du Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Ba kooku c'est le modèle de la jeunesse médinoise dakaroise et du Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Ba kooku mooy ki nga xamante ne incarne le rêve sénégalais comme disait l'autre, que je rêve de l'Amérique. Nous, nous rêvons de la Médina, nous rêvons de Dakar, nous rêvons du Sénégal à travers Cheikh Ahmed Tidiane Ba ki nga xamante moo tax la Médina a trouvé chaussure à ses pieds. Kéba Cheikh ba mu ngi lay gërëm di la sant nee na honneur mënul rëy. lii nga ko defal ci biir doomu Saloum yi fii ci biir Medina gii nga xam ne fi la cosaanoo ci ndey ak ci baay Kéba Cheikh Ahmed nee na danga ko lebal kër doo la fay guddi parce moom dara ñëw ko loolu le président Macky Sall ak Medina gii mu bokk ak Ndakaaru ak Sénégal kooku mooy ki nga xamante ni xamul ku bokk ku bokkul ñëpp la yëgal parce que ñëpp dafa toog rek toogaay jaxanaay doomu aadama bi nga gis te nee na fépp fu ñu toll war nañ mën di jàppale ki nga xamante ni yaakaar nañ ne tane nañ ko wala yaakaar nañ ne mën nañ ko jàppale ngir yàlla tax ngir sabi li daal képp Kéba ba nee na il est prêt à t'accompagner pour que yéen ñaar doomu Médina bi mu doon ak doomu Kaolack nangal bi nga doon ngeen àndandoo ensemble pour donner au président Macky au soir du février une très large victoire dans le Sénégal dans le Dakar et dans Médina suñu kilifa Soxna Tidiane Ba moo fi waroon ñëwul boppam tey jii mais nag dafa am empêchement parce que tey dafa nekkoon assemblée nationale doon fa accompagner son ministre tutelle donc mënul woon bañ teew ci foofu mais nag ñi ko fi teewal fii nekk na une délégation bu am maana boo xamante ne tey jii waxuma la délégation de la Médina de la CATV mais CATV bu Thiès ngi fi CATV bu HLM a ngi fi CATV bu Grand Dakar a ngi fi CATV bu Dakar Plateau Rebeuss moo ngi fi loolu nag dafa ludul traduit par les actes li nga xamante ne Alaaji Maguette moom la ko le président Macky Sall sant mooy que ne élargir sa politique sociale au président Macky Sall bi nga xamante ne moo def ay résultats dans la Médina dans Dakar et dans le Sénégal Cheikh ba moom lay gërëm di la sant wasalaam. waaw di gërëm rek di di gërëm Cheikh Tidiane Ba voilà merci beaucoup euh, Cheikh di gërëm Cheikh Tidiane Ba kon xale Saloum yi yaakaar naa kontaan ngeen kon nag ñu ngi gërëm Cheikh Tidiane Ba loxo yi ñu tàllal incha allahu rabbi dinañ ci ànd ak moom bu soobee yàlla di ko gërëm di ko sant lii fierté la kontaan nañ ci moom jërëjëf merci beaucoup monsieur le directeur merci. waaw dëgg la euh, wax dëgg yàlla suñu waxee Cheikh ba pare te waxuma ci moom ah dina doy waar xam nga Cheikh Tidiane Doké Ba yéen Cheikh Ahmed Tidiane Ba ngeen ngeen ci xam ñun Medina Messi lañ ko tuddee xam nga Messi mooy footballeur bu mag boobu nga xam ni moo nekk Barça nga xam ne bal bu mu laal mu dugg Cheikh nag moom li ñaan jël bal yoo mën waaye dugal bi lay jafe Cheikh moom bal bu jël dugal ko ñëpp lay jàppale ndawalu guddi la ko ko la nga yaakaar yow rek la fekk Cheikh tubarkàlla ñëpp lay dimbal boo amee salaire deux cent mille yaa ngi sa waa kër ko bokk boo amee cinq cent yaa ñaari kër ci koñ bi boo amee un yaa ngi waa koñ bi waaye boo yoree milliard yaa ngi dalaa séddale loolu Cheikh Tidiane ba xam ne loolu bu baax li mu yor ñu koy séddoog doomu aadama yi kon yàlla ko yàlla jàppale merci beaucoup jërëjëf léegi a mer bu benn nit dem bu kenn dem commencé guñ yëf yi commencé guñ sax ami soose répertoire bi mu war a tey tey tey tey ku ko tar gis a le maire de Ndofane dama ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax boo tuddee Ndangaan tudd Saalum di nga tudd Ndofane Ndofane dafa bokk ci xolu Saalum kon yaakaar naa le de Saalum le maire de bu ñëwee muy Samba Ndiaye indi teraangaam ami soose maire rek moo ñu dese dafay dugal enveloppe bi rek bu ko defee yow bu la neexee sax nga dugal Samba mu soog a yéeg. waaw bu ñu gisee rek yéen ñëpp dina tax yàgg ak Serigne Ndiaye. Samba Samba Kandé yi doya. yéen seen yi. yéen Elhadj Touré Matar Touré. waaye sama di bambaay. kookoy bàyyi di bàyyi Adja Mbaye la. mère bi dëkk ci dëkk bi moo la ko dugal dëkk bi. waaw dëgg waaw naa bàyyi sama mère yooyu rek ma continué. commencé damaa bëgg rek ngeen toog. mu ne nii gërëm mu ne nii ñëw na. Keba Keba vraiment sama xol sedd na ndaxte kii nga xam ni tey jii Mounirou Ly Mounirou Ly egsi li ma naan weñu suba teel ñëpp ko bokk weñu suba teel ñëpp ko bokk waaye bu ku weñu topp rek moom la. ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax baax balaa maa wax ci moom. mooy directeur général bu wallaahi naa si bi ma tey baa di fàtte naa sax ni Samba mooy Samba Ndiaye mooy maire Ndofane kii biit lay mujjee jokkoo man ak moom sama xarit la nit ku baax la nit ku yiw la nit ku nangoo liggéey la nit ku nangoo sonn ci doomu aadama la wallaahi Sénégal am na ñu baax. jëmm ji ci la bokk le maire de Ndofane du nit ku baax du nit ku bu ñëwee fekk si doomi Saalum liñ naan da ngaa jële ci loxo ndijoom rek def ci loxo càmmoñ bi la lii mooy réew mi ku nekk na nga jàppale ki nga war a jàppale moo tax ami soose sànq ma ne la ami nit ñaa ngi fi kenn du bougé ndax yow li fay daaneeloo kenn du dem li ngay def mën nga ko te bëgg nga ko te nit ñi bëgg nañ la nii dafa mën a ñàkk ci bis kee bu ko organisé nii faw nii ah gis naa ko baax ba tàyyi de waaye ku mel ni moom yombul ci réew mi Samba kontaan naa lool sa présence nga ñëw indi sa teraanga fas koy jox Keba waaye balaa ngaa def dara da jox kàddu nga wax ba pare ndax bi ngay ñëw am na wax boo indaale te xam naa ni faaw nga wax ko doomu aadama yi soog a dellu vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant sant yàlla mi nga xam ne may nañu wër ak kattan ba ñu ñëw fii tey comme maire laa nag dina am nuyu maire bi nga xam ne moom ma nekk ci gox bi di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp mais dinaa beral nuyoo nag ki nga xam ne yàlla def ñoo boole dañuy nekk ndaw am 11 ans ñu dugg école militaire jàng fa ba am fa bac génn maag moom ñu amandoo même bac bi muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu bokk place bu ma ñëwee fekk fu mu ne nii naa tudd ñu ngi na keneen ku ci ñëw muy Karim Ndiaye xam naa ne ñu ngi yaa leen di yónnee image ñu ngi suivre affaire yi kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba vraiment li ma fi fekk sama xarit sama doomu ndey kontaan naa ci bu baax a baax Médina bi yal na la ci yàlla jàppale ba nga nekk maire bi nag yal na ko yàlla def. di nuyu xam ngeen ne man ngeen tax ànduma ak jigéen bi may ñëw Kéba mooy yéen mbooloo mi ñii toog fi yëpp Ndofane lañ dëkk sama dëkk. Adja Ami Socé Astu Ñan Soxna ak ñi ma Malick Socé <coughs> ku ma tuddul rek bu ma mere mais na ngeen xam ne tey ñi leen di bëggal waa Ndofane lañ man bu du wax dara sax damaa war a déplacé wu ndax sagal ñi nga xam ne ñooy sama mbokk di grand ak. Ami Socé ñun ñëpp xam nañ mën-mënam Malick Socé directeur artistique ñëpp xam nañ ne xalam moom mën na ko jàngale fu nekk Sénégal kon Kéba yow lii nga def dañ ñoo sagal ñun waa Ndofane parce que suñu doom suñu artiste nga jël indi ko fii yow nag Nioro nga dëkk waaye Nioro bu ñuy dem Ndofane la ñuy traversé dama bëggoon sax def système juuti wala visa boo xam ne kuy dem dina fay mais yow doo fay yow boo ñëwee na ngay traversé Ndofane rek jàll ndax li mu defal bu loolu paasee may gërëm sama xarit yi nga xam ne ñoom laa fi àndal yëpp ñu gunge ma ñuy euh, yëngatu ci politique di jàppale le président Macky Sall moom xam naa leer na ko ne incha allah dañ ko ciy teg nag Ndofane moom mu ngi ci biir poosam loolu xam na ko parce que ñii fi toog ñi ñëpp jóge Ndofane sax maa ngi ñoo may ànd di politique ñuy jàppale le président Macky Sall kon moom bu tëddee na nelaw ci suñu côté te ñu ngi koy jàppale feneen ak feneen ak feneen yow gis naa sëriñ bu muy def gerte d'or yow dañ la war a jox gerte d'or parce que yow tu es un digne fils du Saloum parce que yow c'est la énième fois ngay man maa ngi si njëkk a doog a ñëw mais gis nañ sa taxawaay pour yëkkati culture Saloum gis nañ sa taxawaay ci jàppale le président de la république ak soxna kon yow franchement Saloum amel nañ la njukkal mais képp kuy liggéeyal Macky Sall amel na la njukkal kon yow mérité nga ñu décoré la parce que liggéeykat nga te doo tricher yal na yàlla dëgëral gën la jàppale yow lu ñu seq moom xam naa ne mënuñ ko wax sama lépp nga dañuy demlante comme ni ñu ko waxee démb rek la ñu wax kon Saloum Diégué li ma lay wax daal mooy boo demee nga nuyu ma njaboot gi ñoo bokk njaboot te suñu xarit madame le ministre de la femme demee rek am na événement Kaolack demee am nañ événement Kaolack man bu ma jógee fii fa laa parce que suñu xarit bi ñu bokk muy Ndeye Saly Diop Dieng di ministre de la femme dafa am forum bu muy organiser demain à 10h à Kaolack kon yow bi ñu seq pensé na fi kon man bu ma ñëwee fekk la fi sama xel day dal bi nga nekk ni yàlla na ci yàlla jàppale man nag dama nekk ci benn ministère bu ñuy wax ministère de la pêche et de l' économie maritime sama ministre mooy Omar Gueye nga xam ne dañ ko tuddee bés bi di sama kilifa di sama xarit parce que directeur général bi mu nekk bi ma nekk ci ministère am la bokk kon su ma ñëwee fekk fii ñu tuddee ko bés vraiment dama koy delloo njukkal liggéeykat na Sénégal yëpp xam nañ ni Omar Gueye liggéeykat la ba mu ñëwee ba léegi napp bi dafa jëm kanam lépp luy industrie avant dafa jëm kanam kon vraiment le ministre Omar Gueye moom liggéeykat la président Macky Sall ñëpp xam nañ fi ñu ko teg yàlla ko yàlla gën a dëgëral gën ko jàppale Adja Ami Socé yow moom xam naa ne soirée bi tey yaa koy neexal Ami Socé Ndiaye borom këram Cheikh Ndiaye la tudd di liggéey ci man ca mairie ba kon Ami Socé sa teewaay fii kontaan nañ xam naa ne tey guddi gi dina neex yal na la yàlla may gudd kan yaa ngi ñi nga àndal yëpp da sollaw yëpp comme ñoom village ñëpp vraiment ko ñëw guddal lool maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xam naa ne di joxe nag suñu participation waaw nga xam ne mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah yal na ñu def ko ci jàmm jëf ñu di waat ci jàmm ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf alors waaw dañuy indi kër jaay kontaan naa ministre de la pêche moom it délégation ministre de la pêche ay ca ay ca kon indi waaw Samba moo koy moo koy jox Kéba envoi ministre de la pêche ñeent il faut délégation loolu am na solo ngeen fekk fii Samba Ndiaye kon yaakaar naa Samba mooy jël envoi bu la fekk ci loxo nga xam mooy Kéba kon nag li nga waxee rek doomu Saalum yëpp ñu ngi nii def leen nii. guddi na te am mission sa tàng na xanaa rek ah des foo xam ne lan lay sas mënut a ñàkk. allo allo allo. maanaam sama ministre moom bu yónni mu fekk ma fi délégation bi mu yónni ne ma naa bi loolu daf may naaj parce que vraiment kilifa bu ñàkk caaxaan bëgg Sénégal bëgg président Macky kooku bu ngeen demee ngeen ne ko. yéen tam mag ngeen ndaw li ngeen def rafetlu naa ko moom du tan xam lu dara liggéey kat la président Macky Sall ku ne la koy defal vraiment kontaan nañ comme Kéba sa dëkkandoo sa xarit le ministre Oumar Gueye ministre de la pêche et de l'économie maritime maire de Sangalkam xeexkat bi ñëpp xam lu ne def nañ ko ko muy résister kooku moom moo la jox enveloppe bi xol bu sedd bi voilà jërëjëf jërëjëf mu ni ñu nii teewaane la ñu ñëw nii bu baax kon nag bu dee dem nañ kenn wax nga dem nañ kaane bàgg war na mbaam lu waay doon jaay tey mu lam ñu bàyyi leen ami soose ndaanaan bu mag bi doomi Saalum voilà xam nga mu ni ñu nii sama patron mooy suma kilifa ñëw na wuy si ma mooy suma patron tey a ñëw wuy si ma mooy directeur général dama bëgg nga a tëb taxaw yëkkatil ma sa loxo nga ay xool la kii nag mooy sama patron gars yi kii moo may indi moo ma may indépendance may def lu ma neex kii moo ma may indépendance bàyyi ma may dox bañ a liggéey bi def lu ma neex waaye ku jël ma Macky Sall su ma la ñëwee ni mu réew merci beaucoup yaay sëñ Modou Faté dëgg la kooku maa yaay mu dëgg la pire nag barke sëñ Touba sànq mu di mu yàq sama programme ci ginnaaw ndax dama dugg si rek dama dama ah, tata maa la bëgg yaay maa la bëgg ba ma xaw a bëgg a ñëw sax nag ndax bëggee dafa foor di nuyu Omar bi fi jaar Omar Loum waaw sama doomu xamamul asalaamaaleykum téléspectateurs yi suñu TV ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, kenn ku nekk euh, turam ak santam ginnaaw bu leen nuyu bu baax a baax euh, egsi si guddi gu nga xamante ni moo nekk la nuit du 7 décembre ñu leen ko préparé ay weer waxtu wi nag ñu ngi fii si Dakar si maison de la culture Douta Seck mu nekk guddi gu nga xamante ni c'est la nuit du festival Ngoyane. organisé par le mouvement Taxawu Suqali Saloum en collaboration avec DJ Amon l'animateur de Walfadjri di nuyu bu baax waa Karang Postu di nuyu bu baax tamit euh, auditeur euh, ak téléspectateur la télévision suñu TV di la wax rek guddi gi nag mu ngi démarré ñu ngi koy commencé nga xamante ni moo nekk ñetti artistes yoo xamante ni moom am ñu commencé nga xamante moo nekk Tada Codou Dieng moom moo nekk premier artiste buy ubbi li nga xamante ni moo nekk guddi ngoyaan gi. suñu fa jógee ñu fekk fa ki nga xamante ni moo nekk Omar Loum Omar Loum nag moom tamit euh, mooy def guddi googu euh, suñu fa jegee tamit danañ am ki nga xamante ni moo nekk Tata Ami Socé kon nag guddi gi demande na ñu ànd seeg son excellence monsieur Keba Ba ñu faral ko kon nag téléspectateur yi nga xamante ni ñoo nekk suñu TV guddi festival Ngoyane mu ngi nii. di leen jox lépp loo xamante ni programme la incha allah dans quelques instants jooy ngeen jëf. voilà merci beaucoup ñu ngi nii toog ki nga xamante ni moo nekk euh, directrice euh, de la maison de la culture maison de la culture Douta Seck Fanta Kane moom lañ toogal nii salaamaaleykum. madame la directrice. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct de la télévision suñu TV de Kaxang tey ñu am guddi nga xamante ni moo nekk la nuit di Ngoyane en tant directrice de la maison de la culture Douta Seck lan nga ñu mën a addul tey si guddi tey gi. Euh, di di julli ci nabi Moustapha sallallahu alayhi di gërëm ki nga xam ne nag moo waral initiative muy monsieur Kéba Ba le président Kéba Ba di sant suñu ministre le ministre de la culture monsieur Abdoulatif Coulibaly nga xam ne daf fi nekk ministre de la culture mais mu uuf ñëpp acteur culturel yëpp yaatal di accompagner ñëpp ñun ñii nag di xam ne daf ñu fee teg teguñu fi lu dul rek ñu accompagner acteur culturel yi initiative bi nag rafet na parce que dajale say mbokk. dajale Saalum bi yëpp pour ñu jàppale le président de la république pour mu mën a eggale ay chantier muy message boo xam ne c'est message culturel le message est culturel et puis c'est message de développement au finish de développement suqali Saalum la wax jàllale ko ci aada ak cosaan aada ak cosaanu Kaolack nag Saalum mënul weesu ngoyaan mënoo weesu ngoyaan fa tabarkàlla ñun nag li ñuy ñaan yàlla mooy ngoyaan ñu dem ba ñu jël ngoyaan ñu classé ko patrimoine loolu mooy suñu combat bu luy jàllee ci loolu la ñuy dox incha allah. ñu bàyyi la nga joxe sa mot de la fin en direct de la télévision suñu TV. waa xanaa di rafetlu délégation yi ñëw ñëpp ñëw nañu ñi war a ñëw ñëpp ñëw nañu euh, di ñaan yàlla ñu jeexal ko ci jàmm salaam. fixé waat beneen rendez-vous yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam incha allah rafet na vraiment rafet na et félicitations à vous aussi vraiment suivre naa depuis un mois ngeen nekk sur le di dérouler seen liggéey rafet na ah, merci beaucoup moo nekk madame la directrice Fanta Kane mu nekk directrice de la maison maison de la culture bu Douta Seck fii si Dakar kon nag ñu wéyale li nga xamante ne moo nekk suñu laay rek en direct de la télévision suñu TV jërë ngeen jëf. Ah, ñu laaj suñu jigéen bu toog rek salaamaaleykum yaay béy. maaleykum salaam. maa ngi am jàmm am jàmm bu baax. Ah, tey nga ñëw fii si maison de la culture bu Douta Seck. yegg fekk ci li nga xamante ni moo ngayaan lu waral tey sa teewaay fii. sama teewaay benn muy premier ministre de la culture Latif Coulibaly bokk délégation bi nekk ministre bu baax ci ñun di jàppale Kéba di xaytu Kéba bokk délégation mooy tax a ñëw ci ngoyaan bi tey waaw. yow nga jógee ñëw fii. ba Sokone lañ jógee. waaw depuis Sokone nga jógee fi ñëw. délégation ñëw fi di ministre bi ñëw fi waaw. boo gisee na trop macha allah nee na trop ma ne ko guddi yëngu na seen Saalum yëngu ngeen soxna si. maaleykum salaam. yaa ngi en noo gisee tey guddi tey gii. ah guddi tey neex rek. neex na macha allah. baa xeeboo li nga sañse rek. déedéet. sa sa sa sa yére wala baax na de. neex na macha allah. dégg nga. <laughs> man ngaa tooñ ni quoi ak tey noo gisee guddi tey gi tey. guddi tey gi neex na. macha allah woy lu neex. acca salaamaaleykum soxna si. waaw. da baax. sant rek. yaa noos. bu yem rek. baax xeebal li nga sañse. baax baax. baax noo gisee guddi tey gi. waaw neex rek ñun ay Mbeelakunda leen surtout Bakka leen Njaaw Bambali mooy suñu cosaan ñu ci eh, ngoyaan leen juddoo màggee ci ba tool niñ tool nii fas yéene ngoyaan ba bër rek barke Serigne Saliou jaa ngeen yi voilà sama sœur c'est ma petite sœur ma lay ziar ma sœur. ngay delloo baax. maa am jàmm. am jàmm sant yàlla. li nga baax na de. dëgg la ma ne ko ñëw jàppale sama mama rek. ndeysaan mama Codou Dieng. ndax nee lu yëngu lu ne la ko yëngal. def lu fashion rek. macha allah waaw waaw. li nga def mbaa xeeboo ko. benn yoon. noo gisee guddi tey gi mi ne. kontaan ci bés rek ndax ngewee la na. yëngal nañ ngewel macha neex na. macha allah xam nga dañoo bokk si xeetu ngewel. ak Serigne Fallou lu ñu yëngu lu ne da ngeen ngewel la ko yëngal. la ko yëngal tey fii yëpp yëngu na. da ko fal ak maa joor ku ma sàmm yaa joor dëgg la suñu yëngu. billaay wallaay ma ne ko ñang baalo bali mi ci jëre waali mi ci sànjaal. Ah. biram xëy di biga mën a tëdd gumbalaam lu ñeeme njaay layti fatim sey ah, barki Serigne Fallou. waaw ñu ko jëlee bu a la kontaan sama si mbaa xeeboo sañ déedéet xeebuma li ma def. ko déedéet. maa am jàmm baax. waaw maa am jàmm waaw waaw. neex na trop macha allah ndax Ngoyane dafa nekk loo xam ne dafa neex dafa riche te dafa développé fi mu nii ndax ñëpp a ko bëgg surtout Ndakaaru fi mu nii ma ñëwoon rek jàppale sama tante Codou Dieng ci bisam bi waaw loolu laa demee. merci beaucoup ñu ngi la suñu laaj rek euh, topp rek euh, ñëw. Ah, ñu continuer li nga xamante ni moo nekk suñu laaj suñu jong muy xew bi ana ngeen voilà borom waaw madame Yacine Ba soo la neexee sa jaay sant sant ba su la neexee tey maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu. tey ñu fekk la fii sa borom kër xewle nga bàyyi si te ñëw teew ana lan nga yëg tey. xanaa lu neex rek xol bu set neex na torop macha allah waaw sama borom kër bu xewlee aw ma lenn lu dul lu may def lu dul ñëw toog rek jàppale ko topp ci ginnaawam rek mbaa xeeboo li nga sañ sa déedéet xeebu ba <laughs> déedéet xam ne yow pare nañ si beneen jabar. <laughs> yow pare na yow ah yaa ko ah. président maa koy xool mu ngi gis a di kontaan rek nii ni mu demee nii. aja lan ngay wax ñi nga xamante ñu lay seetaan si télévision suñu TV en direct. waaw di gërëm ñi teew di rafetlu taxawaay bi macha surtout yow ak Sadio ko Mbodj vraiment seen liggéey rafet na vraiment kontaan nañu daal waaw dañoo émotionnel xamuñu sax lu ñu war a wax macha ma ànd ak sama géwél bu baax bii nag waaw. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar. maa ngi sant waa Jaxaay. waa Jaxaay ñu ngi. Jaxaay ngi ne. mi ngi sant ku dugg gii tey. xanaa kontaan rek di ànd ak suñu leader Kéba Ba moo dëkk ci dëkk bi boo lekk dafa dëkk bi Kéba macha allah takkamul wu kenn Kéba ñu nag moom bànneex ñu nag moom naqaar ñu nag moom lépp dañu koy ñaanal yàlla mën ren bu déwénee yàlla na ko mën ko yàlla ko yàlla bàyyi soxnaam yu baax yi. te li muy def bu déwénee yàlla na yàlla nañu dépassé fii ci barke Seydina Mouhamed waaw. merci beaucoup Sadji Ka Mbodj voilà mon ami frère ñu koy nuyu baax dañu ko nuyu rek euh, sama gars yi nekk fee si kanam euh, ñuy wax li nga xamante ni mooy guddi ngoyaan gi mu ngi nii yéen ko dégg mu nekk lu amaam solo. kon nag euh, kon nañu bu baax di leen kontaanee d'accord damay ñëw sama interview ñëwal fii ñëwal fii ñëwal fii kaay fii kaay fii kaay fii kaay fii kaay jëlal ma ñii. macha allah kaay fii kaay fii salaamaaleykum. waaw xam nga li ngeen sañse rek. ngir bés bi. yéen nga baax. waaw. ah noo gisee guddi tey gi gi xanaa dafa àll daaw neex rek. ami soo sa yeeg ki ñu rek. di ñëw Sénégal cuub ñu koy jaay cuub muy def ba mu baax kontaan si bés bi rek. merci beaucoup. ajo salaamaaleykum. maa ngi lay baax a baax. wax ma tur bi baax a baax. ñu ngi lay ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax. yaa ngi am jàmm. sa tur ak foo jógee ñëw fii. <laughs> waaw maa ngi tudd kenn madame Diop. waaw ñun ñu ngi jógee ba parcelle ñëw si guddi Ami Socé bi rek. waa Sénégal Cuub. waaw ñun ñoo mu invité si. dama dégg yaa yor Sénégal di def ngeen li mu li nga cuub tey yaa ko tey ak li ma saseel nii yaa ko tey tey. waaw gis yàlla waaw soxna nga daal service commercial dégg nga. atia salaamaaleykum soxna si. salaam. ah sama mag jaa ngi nii waay. waaw sama mag jaa ngi nii waay. wax nga dëgg nga seen sa mbaa rek. déedéet. waaw ah, noo gisee groupe tey gi tey. waaw neex na ma macha allah neex na. neex na teel na commencé jeex na heure neex na ma macha allah jàppale waa Sénégal cuub rek. waa Sénégal cuub ñoo ko yor. salaamaaleykum sama yaay. ah. macha allah aca merci euh, beaucoup euh, Sénégal merci beaucoup waa suñu TV merci beaucoup ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi lii moo nekk lu nga xamante ni moom lañ jëlul fii en direct maison de la culture bu Douta Seck di bég bu baax a baax ànd bu ngeen ànd ak ñun yéen ko naane bu baax a baax waa suñu TV jërë ngeen jëf waa Karang jërë ngeen jëf yéen jox jox rendez-vous ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu merci beaucoup téléspectateurs euh, téléspectatrices ñi nga xamante ñu ngi bàyyi xel télévision yi euh, guddik ngoyaan gi nekk euh, mu ngi nii ñu ngi taxaw ki nga xamante ni moo nekk son excellence monsieur Kéba Ba moo nga xamante ni il est le président du mouvement Takku Suxali Saloum taxawal guddi gu mel nii di guddi gu yaa yanji lu tax mu def ko nag moo nekk la réélection du président son excellence monsieur Macky Sall au premier tour dañ koy jox rek suñu micro mu wax guddi gi nu mu commencé ba nu yegsee fii ak nu mu ko gisee laata loolu dañ koy nuyu bu baax salaamaaleykum président Kéba maaleykum salaam di Diama. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi leen di gërëm di leen sant. Euh, nga nekk organisateur nekk tamit président nekk nga xamante yaa taxawal guddi gi di festival Ngoyane ana lan nga jàngatee tey guddi gi tey. waa sant yàlla rek parce que guddi gi vraiment liñ ci doon xaar gis nañ ko ci. Mhm. Saalum Saalum yi ñëw nañ uy si ñu. organiser nañ ko ñin nii ñëw nañu. Mhm. loolu rek moo am solo. kon dañ ci sant yàlla bu baax di remercier tous les Saalum Saalum. Mhm. di aussi leaders yi nga xam ne jàppale nañ ñu. les parrains. Mm. en commençant par Abdoulatif Koulibaly le ministre de la culture mm. en commençant aussi par Diène Ndiaye mm. mon ami Diène aussi di gërëm le ministre Omar Gueye mm-hmm. Mame Samba Ndiaye ñu koy gërëm mm-hmm. di gërëm aussi euh, Macoumba Diouf mm-hmm. euh, di gërëm euh, Cheikh Tidiane Ba di directeur général des impôts et domaines dégg nga lim fi wax sànq waa ñu ngi koy déglu di ko xaar donc di wax ne wax dëgg yàlla tubaar fakal en tout cas kontaan nañu mais ak gërëm aussi xale yi ma àndal ñu nekk sama ginnaaw di ma jàppale maa gërëm bu baax di leen sant di gërëm aussi son excellence le président de la république Macky man ku ma xam rek xam ne ci loolu laay dox président Macky Sall koy gërëm di ko sant di oo nag képp kuy Saloum Saloum et kuy doomi Sénégal di la wax ne nga préparé pour la réélection du président Macky Sall en 2019 moo nekk secret Keba Ba depuis que muy taxaw daana ko ngir taxaw li nga xamante ni mooy mouvement bi lan mooy sa secret Keba non sama secret mooy gëm sama bopp rek xam nga da lay jàppale boo loo sumba daan loolu rek mooy sama secret. qu'est-ce qui t'a euh, inspiré inspiré créer le mouvement takk xam nga rek boo nekkee boo nekkee Suxali Saloum moom xam nga rek euh, slogan boo xam ne pour rek euh, pour mën a promouvoir pour que dimbale néew di doole yi dimbale aussi ñi nga ñi nga ko seqal sa nawla yi. aussi jë mën a defaale politique aussi. jàppale son excellence le président de la république Macky Sall. say projet lu mu doon. waaw projet mooy ëllëg fas yéene. Mhm. gën a suqaliwaat Saloum. suqali Saloum bi peut-être man kenn rek mënuma suqali Saloum. su ma ko waxee xaj na dina jaaxal nit ñi mais nag bu ci ñëpp jàppee yaakaar naa ne li may def keneen def leneen keneen def leneen buñ ko boolee rassemblé ko Saloum dina dina soxali ko bu soobee yàlla. votre mot de la maa ngi gërëm ñëpp. di gërëm aussi jigéen ñi ma àndal ñu nekk suma wet. ba ami ami ba mi nga xam ne mu nga jógee ba Ndofane. di gërëm vraiment ñi nekk suma wet ñoom Ndeye Mati Cissé. ñoom Yacine Tambédou. ñoom ñoom Assou. surtout ñoom euh, yow DJ Ama yow mi. Mm. tubaar Fakal Sadio Kombooj. Mm. di gërëm ñoom Aliou Ba Amath. staff bi ma àndal. di gërëm aussi directrice de la culture Douta Seck madame Fanta di gërëm ñëpp di leen wax na leen gàcce ngalaama en tout cas maa ngi remercier ñëpp jërëjëf d'accord euh, merci beaucoup chers téléspectateurs téléspectatrices euh, lii moo nekk li nga xamante ni moom lañ jëloon tey euh, fii si maison de la culture Douta Seck mu nekk ni guddi gu mucc ayib la àndoon seeg merci beaucoup ñu leen di jox rendez ba prochaine édition sur les zones nga xamante ni moo nekk maison de la culture Douta Seck jërë ngeen jëf